sëñ Sidi Mokhtar Mbacké di ko jottali nuyoo gouvernement bu Sénégal yëpp ak nuyoo askanu senegal yëpp ci bésu Xaadimu Rasuul bu tedd bii di bés boo xam ne moom moo ko liggéeyal jullit yëpp te sunu borom fay ko bésam bii di màggal Tuuba kon sëñ bi Mbacké nuyoo bu gën tedd bu gën a taaru dañu lay nuyu di sant dina wax it ne Mbàkke kàddu yu nga yëkkati sa kàddu yu tedd yu nga yëkkati te si génn tey li xew Touba ak teeru bi waa Touba teeru si sa ndigal wan nga ma ni de def nga ma taalibe Eh, wan nga ma ni de def nga ma doom wan ma nga yit ne wan Senegal yépp ne réew mi war nañ mën a am soo kat léeg si ay diggante kàddu yu mel nu sëyas rek moo ñu mën a tett delloo si wàññi ci yoonu njub mbàkkee dundal te wér dana yàlla yokk may la yal nañu jàkk di la fekk si si sa bërëb bu tedd bi liggéey bi nga xam ni sëñ Tuubaa moo la ko jox nga taxaw si taxawaay yoo xam ni adduna bi yëpp gis nañu ko ji seddale nah, ya si ndax soror bii nga yëkkati ak liggéey bi ñu tàmbaliwaat si jumaa ji mel na noonu jumaa ju bees tàq liggéey bi nga yëkkati ci Touba moo xam lii ci daluwaay lii ci yoon lii ci yaatal ak taaralaat dëkku sëñ Touba bi ñoom danañ la ci fekk te it maa ngi ne lu yees at may waajal ndaje bu amaam solo bitim réew Sénégal bind xaatim programme bu yaatu muy programme économique moo war a dem dajeeg bitim réew yëpp Amérique di France di Chine di ñëpp jiitu dem réewu Chine ba ma la woowee ne lu Mbàkke kat maa ngi dem yoon boo xam ne yoon bu amal njëriñ Sénégal la te am nañ si jaaxle waaye sàkku naa si sa ñaan te ma ne na fas yéene ci yoon bobu may dem Chine ko yalla dogale bëgg naa defar autoroute bi ñew Touba ma tudde ko Villa Touba bama ma la ko waxee nga ne ma ah, dina dinaa si def ñaan boy war ak dama yalla dina si def jàmm yaakaar naa ne yoon woowu ca Chine ak ca Paris groupe consultatif résultat yi ca am umpul kenn ci réew yàlla dem na nag barki démb ci suba la ma dañ ma woo ci Chine wan ma ne ma léegi ñoom xaatim nañu barki démb signé nañu contrat boobu ngir autoroute bi nga xam ne mooy jógee Kees ñëw ba Touba sotti ah, muy loo xam ne nag liggéey la bu Sénégal mosul def ci wàllu dayoo ndax yoon la woo xam ne mu ngi toll si ñeenti téeméeri milliards ak lu topp ndax ñaari yoon lay doon ak ay. Euh, échangeur yu kéemaane ci dëkk yi muy romb yëpp lu mel nu Kees lu mel nu Bambey lu mel nu Njaareem ba ba nga yegg ci Mbàkke Touba euh, may ñaan sa ndigal boo ko d'accordé incha allah balaa weer wi dee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi laa bëggoon ñëw ànd ak yow ñu teg xeer bu njëkk ci autoroute boobu te bu ñu ko tegee ba pare fas yéene ko tàmbali kon ñu ngi ñaan itam suñu borom bàyyi ñu fi ñun ñëpp ñu ñëwaat inauguré ko ak yow liggéey la boo xam ne liggéey am solo boo xam ne itam dana soppi lool taxawaayu réew mi ci wàllu dem ak dikk dana yokk sécurité dana yokk taar waaye itam dana yokk koom-koom loolu mbàkkee ci sa ñaan ak sa ndigal daf nañ ko yàlla sotti ko kon am naa mbégte day jox la ndigal boobu wala ñu si joxe ndigal daal naa chinois ba pare balaa weer wi dee dala tàmbali liggéey ko taxawaayu gouvernement ak li ko wër moo xam ci wàllu ndox wala wàllu courant mooy ñaari yë yëf yoo xam ne daanaka mooy li gën a defar màggal ndax doomu fi ñuy ñëw war nañu am ndox bu mu doy war nañu am courant yoon itam war nañ ko defal ak wér-gu-yaram ak mboolem taxawaay yi nga xam ne gouvernement bi war na ci taxaw en tout cas joxe nañ digal yëpp ngir premier ministre Mohamed Dionne ak gouvernement ministre yëpp te ñu ngi fi teew ci su ne béy waaram ba xam ne màggal bi dana nekk màggal am solo ñu màggale ko jot li nuyoo sa doom nu ma xam itam da nga ko jàppee da nga ko ñaanale ak nuyoo gouvernement bi yëpp ñu lay sàkku ñaan ngir Sénégal suñu taxawaay daal ak suñu xalaat yëpp sëñ bi mooy la nga waxoon rek si suñu daje bu njëkk ginnaaw ma yàlla dénke réew mi ci kër ngànn daje da ne ma kat man awma samay soxla boobu si lenn sama soxla yëpp mooy njaboot gi askan bi mooy nga bàyyi xel te nga am yërmande ci béykat waxtaan na kàddu yooyu nga ma waxoon te loolu taxaw nañ si bu baax ngir béykat yi euh, nguur gi taxawu leen ngir itam mbéy ñu dooleelaat ko si suñu réew fulalaat ko ba nga xam ne képp kuy jublu ci métier boobu suñu borom mën la si may loo suturloo ci biir loolu daaw jéeg ak daaw joxe nga digal ñëpp dellu nañ si tool yi yàlla def na itam ren ñu jël décision bu mag mooy ñu fexe ba ceeb bi ñuy jëfandikoo ci réew mi lépp ñu koy béyee ci biir réew mi loolu nag mën naa sant gërëm sa njaboot bi ndax ñëpp xam nañ seen taxawaay ci wàllu mbéy ma leen di gën a ñaanaat ñu yokkaat taxawaay surtout si lu del lu jëm ci mbéyum ceeb ci vallée bi wala ci anambe wala ci bépp xeetu euh, xur boo xam ne mën nañu taxaw ñun ñëpp ba loolu jëm kanam danañu andi machine yi ci war daañu joxe jiw bu ci war ak engrais yi ci war ngir Sénégal si diiru ñetti at a jéggaani ceeb bi xam naa ne boo si joxe ndigal moom xëy na ñetti dana ko du ko mat kon ñu ngi santaan di ñaanaat suñu borom. nga yàgg fi loolu te ànd ak wér di la sa ndigal itam may ziara euh, mbokk yi fi wàññeeku bokk ci sa njaboot si jamono ji ñu génn danaa si lim ñaar rek kenn ki muy seen Cheikh Abdou Khadre ba euh, juróom wàññeeku na fi ak sëriñ Abo nga xamante ne soxnaam wàññeeku na fi ñeneen ñëpp ñi tam am euh, tiis yu mel noonu leen koy ziara sa kanam di ziara njaboot gi yëpp di sant yi nag ki ma boole woon muy sëñ di porte parole si taxawaayam ak liggéey bu rafet muy dox si suñu diggante na nga ko santaane woon kon bu ma dellu wante si sa kanam war naa ko mën a sant gërëm ko ndax lépp loo ko waxoon matal na ko mbàcc lépp loo ko santoon def na ko kon suñu Bassirou tam ñu ngi lay sant di la gërëm te nuyu itam sa rakk yi fi toog ak njabootu Sëñ Tuubaa yëpp xam naa ne bu ma limee day yàggu waaye daal waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di sant ñëpp di la xamal nag ne Mbàkke teeru bi ñu am tey dëgg yàlla man de yàgg naa fi ñëw lool anam bu ne itam ñëwee naa ko fi naa fi nekk minute doon fi gunge itam ñaar ay eh, kilifa doo nekk premier ministre doo naa fi nekk président assemblée doo naa fi nekk opposition ñëw fi nekk président de la république waaye ñëw bii tey yaakaar naa ne li ci li ci li ci kéemaane mooy kàddu yu tëdd yi nga yëkkati indi nga te wax ni kër sëñ Touba sens bi ñu am ginnaaw bi leen sëñ mu taxaa ni mu toogee fii ak kilifa yi toog muy yow nañ suñ roy wàccee seen bopp suufeel seen bopp jëfe ndigal naa ne bu ko ñëpp defoon daal ah, réew mi kanam rek da jëm rek kon maa ngi sant di gërëm ah, foofu laa yemale sama kàddu rek di ñëw nag ziare si ñëw di sàkku si ñaan ñeel réew mi yàlla yokk fi taxawaay yokk fi naataange ah, yokk mën-mën yàlla yokk tam jàmm ndax jàmm tey jii ñëpp moom la ñaan si àdduna bi yàqkat yi bëri nañu xoolee ba ci Afrique sowu jant réew moo dem mu ngi am tolof tolof fii nag am nañ fi yaakaar ndax ñu fi tëdd waaye du teree faw ñu fagaru faw ngeen yokk ñaan ngir ñu aar réew mi bu baax ba dara du ko mën a indil jafe-jafe ñu ngi lay sant Mbacke di la gërëm daaw ma sëñ la si بنا محمد الأمير وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان المتقين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديال الشيخ سيدي المختار mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Cheikh Xadim ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool te man ko wér. mën naa ne moom ci liggéey Sëriñ Tuubaa yëpp mu mot la ko ci jàmm. ñu yëkkati kàddu yi ñëw. ak mboolem délégation bi ñu àndal yëpp ñu ngi yóbbu ci turu sëñ bi nga dalal jàmm fii ci dëkk bu tedd bi Touba nga xam ne yàgg dafay ñëw ñu ñëwaat fi tey ngir siyaare si ko ci waajal màggal Touba gi nga xam ne moom la ñu tudd si ngir bañ a guddal nag. sëriñ bi fonk bi mu la fonk ak màggal gi jublu si ak ci yoon bépp toog bi ci wetam tudd ci sëriñ Sidi Mbackeem Cheikh Abdoul Ahad ñi nga xam mooy itam diggam ak sëriñ bi ñëpp xam nañu tudd ci sëriñ Abou Mbackeem Cheikh Mahamadou Fadil ak sëriñ Mamour Mbackeem Cheikh Mahamadou Mourtada ak mboolem ñu bëgg sëriñ Touba bi jëlee di sëriñ Fallou Choy bu sëriñ Moussa Ba Abdou Khadir ak njabootu Cheikh Ibrahima Mbacké njabootu sëriñ Abdoulahi borom dër ak mboolem njabootu sëriñ Touba gépp ba ci ñi nga xam ne seeni waajur ku ne xam ne ñu mujj nag sëriñ Touba di waa kër ak Cheikh Ibrahima Fatick waa kër sëriñ Massamba waa kër borom sëriñ Gaawal maam Cheikh Anta waa kër Mamour Diarra ak ñi ci des ñëpp ak mboolem mbokk yi ak mboolem seexi Serigne Touba yi ñëpp ñu ci jotaay ku ci wante ñu itam sa ndaw toog ñëw na teewal la fi jotaay ngir ñu ngi toll ci moom Serigne bi nag moom ku ko xam ku ne xam nga ne ni ma koy waxee waxtu rek jëmm la joo xam ne Serigne Touba bokk na ci. li mu digle woon Cheikh Abdoulaye daana ko wax dafa waxoon njabootam gi ne leen di fexe nit ñi seenoon xel di dal ci man moom mii nag ku ñëw ci moom ku ne sa yaakaar dana dolli ko ndax yaakaar dolli bàyyi seen kër bàyyi seen aada ñoo fekk Sëriñ Tuubaa dafa amul yaakaar moom ku ñëw fii ci moom nag da nga xam ne yaakaar jooju tey la gën a dëgg. Sëriñ Tuubaa daan wax ca njaareem. boobu mbooloo mi dafa bari lool am kenn ci bokk ci waa Mauritanie wax Serigne tubaa ne ko seex mbooloo bi da bari na lool ne ko minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxirata ñii àdduna leen tax a jóg ñii àllaaxira leen tax a jóg Serigne Touba ne wa inna lanaa la laaxirata wal uulaa am na fi àllaaxira am na fi kon loolee nag Serigne bi xam ne dëggal na loola ndax moom. boo mu fi toogee ba fii mu ne liggéey Sëriñ Tuubaa képp ci la ne ndax xeet li bindee fi njabooti ñëpp ndax Sëriñ Tuubaa dafa daan wax ci sëriñ Sohaybu laa ko déggee danaa wax nañu ñu bokk ci yeneen turuq yi ci des bëgguma kenn ku leen wax dara ndax ñëpp sama njaboot lañ moo tax moom ñii rek loolu rek lay dundal waxtu wu ne kon nag yàlla na fi yàgg lool tam ànd ko gër di leen nuyu nag di la sant bu baax. di la gërëm ci sa dikk gii ndax euh, moom dafi nekkal Serigne Touba kon képp koo xam ne jëf nga ci Serigne Touba naa ko kilifaam bu baax ko waxee woon rek ko jëf ci Serigne Touba ku ne murid yàlla war a fay gis na ne nag ba nga fi toogee ba tey yaa ngi feeñal yéene yaa ngi feeñal jëf kon nag cant ñi mu la cant ci jëf rek la ko teg kon nag ñu lay sant ci liggéey yi nga xam ne tàmbuloon nga ko ci dëkk bi. muy assainissement bi nga xam ne dëkk bi doon na taa yi ba xaw a métti waaye ren liggéey bu rëy bi nga xam ne def ko ko ji sant nañ la ci bu baax ba liggéey ba toll na ci daanaka àgg na fi mu ba li ci bari kooku yàggul ministère bi ko wax na ma ne ci wàllug assainissement bi nga xam ne moo jëm ci geneen fànn gi ci des am nga ci projet bu mag boo xam ne yaa ngi koy jëmi ci Touba. kon loolu lépp itam sa yéene ci Tuubaa màggal gi itam bi nga xamee ne mi ngi jub si sëriñ bi yónni ma ci yow ma jokkoo yow fànn yi nga xam ne waxoon naa la ko te loolu sa yàggut boo fekk na mu xaw a jàmp lool waaye lu ci ne def nga ci yitte ba nañ ko bëgg woon ñu amee ko mooy ci wàllu ndox mi def nañ ci jéego yu rëy rëy yoo xam ne daanaka. bu fekkonte ne téeméer lañ daa am ci mètre cube bi mën nañ ne dolliku na loo ko ñaar fukk wala lu ko ëpp baren ji jafe-jafe bi ñu gën a am ci dëkk bi sax mooy tiwo yu toj ci biir dëkk ndax la ci sant bu baax di gërëm ba ca desaat it mooy ci wàllu bi mooy ci sàkkoon ci yow ko def ba ca desaat it mooy ci wàllu sécurité nga xam ne dëkk bi ko ne fa jamono yëpp dégg ngeen ñi fi doon xew mu metti woon loolu itam ba ko yëgee joxe nga ci ba daanaka mel na ne mi ngi saafara fi mu nga xam ne waxal nga ko sa bopp mooy projet autoroute Touba boobu nga wax Thiès Touba mu bokk ci sa projet yi gën a ci réew mi kon loolu day wane ne jox nga cër Serigne Touba kon nag la Serigne Abdou Lahad rek lañ lay wax. dafa waxoon ne waxtu lañu defee lu defalee jëfalee lu ne fàng na ko sant ba ñëpp dégg ko kon nag sëriñ bi nag mi ngi lay sant bu baax mu ngi lay gërëm ci sa jëf ci yoon wi ak sa jëf ci njabootu sëriñ Tuubaa yi ndax moom njaboot gi rek la am ak taalibe kon nag lépp loo xam ne jëf ko ci ñoom rek ñu ngi la ci sant ndax cant ko moom la war di ñaanal suñu borom dimbali la kattanal la ba naan ak somb yi nga xam ne am nga am nga ko ci réew mi lépp nga mottali ko jàmm ci barke sëriñ kon nag loolu daanaka lañ amoon ci liñ ci wax ci kàddu yi ndax jataay bi dafa yàgg te kilifa yi itam toogaay bi na ñu ngi ciy jéggule ndax euh, am na sax ñuy fàtte commune Serigne Abdou am Serigne Cheikh ndax nit moom boo rek da ngay waaye daal bokk yëpp teew nañ ñu ngi sant ñëpp ci turu sëriñ bi di ñaanal ñëpp di sant njabootu boppam yi nag di njabootu Serigne Touba nga xam ne Serigne bi waxtu ne ci yéen ndax fi ngeen ko mënu mënu su ko weesu jox ngeen ko seen yëpp jox ko seen jëmm jox ko seen alal jox ko seen yëpp kon yéen itam da leen bàyyi ak Sëriñ Tuubaa xam ne képp ku koy liggéeyee ku ne bàyyi nga ci loxoom dana yàlla dafay am ci barke Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum. amiin Mbacke. amiin Yüz tane yakıp dövün. Amin bak. Bekleyelim mi? Serme la Hey, simple, hey. Hey, Yeah, yeah.